bo ɗo alhamdulillah mbi ala tanto ah, mbi ala kiɗa tanto mogo fin ɓoro min keni mbi kawna an keni an munu mbeya de foni momi ye wuliya fo noto mbeya nafa ɗo aɗu mogo mbeya kanga mogo kemeni fen bo aɗu eh, ni mogo kele min fo mbeyade bo fo aɗu ni ye wuliya tigɛ dɔrɔn i fan i b'o k'i yɛrɛ de ni mogo mi y'i ka denbaya bila k'i bena jarali la aɗu i tɛ ka jara ko ye kalo le tigɛ dɛ ne keni an be dami alhamdulillah an bɛ ala tanto sali fula fa tonganda fo awla ko woli jato mur ka lisore ka jator alhamdulillahi rabbil alamin ñum ba safe mi te fan fan di jat sinamu si kato kato no ñini lola ko kamna wala juju ki la e bare nge pi sax na purgol me tey tati pini rumu fotule matwa fuken di jat sinamu yani mama jani dem bon di fuken si kato kato jere di pio yari pio pio dinji bare kabina ji jalo ku nakak jaat ku tamite wuno le ndere koy koy fam fam onon ja pio pio re ngon no non simit sono bo awr jari ya juje nje nani kalam tan kankan nyaay mit amit utete or mateni la yoli ite or te or yakbe yakbe kasamas jejo yakbe bo mm. sukiano sanen mi sutu manji kabina ni woli ni rindimbo ni tong tata dia president o yaay jemi mm. di jaat namut di no parce que no e jawja leñewu leñi koyim jama di leñi bari kabini tonge tata difna ka fola place la yaay jeme be jaat ante fang jama benen no bare gumbuleri man contente bele am xama fa la wara em ñu tax ma wax leen loolu bi may ñew fii ba mu ne lu ma suma boppa dara booba maa ngi sonna waaye bési niki tey maa ngi am sawarte xam xam am kattan si suma yaram yaa jàmme man mu mënuma koo fe yàlla koy fe ngir garab yaa jàmme bi le njëriñ na ma lool te kenn mënu koo fee yàlla rek a koy yow feebar bi kañ nga ko yëg sa yaram. bi feebar bi yàgg naa ko yeg sama ma yàgg naa ko yëg sama yaram mun na ñaari at léegi. mun na ñaari at. lan nga daan jël. maa ngi daan jël garab tubaab si lopitaan bi waaye xaw ma woon feebar bi la waaye dama ko dee gis yëpp suma yaram. bi nga demee be xam ne feebar bi la. lan nga daan def. bi ma demee ba xam feebar bi la biñ ma testé fales biir kaama lopitaan bi ba pare ñu ne ma amuloo ko woon waaye léegi am nga ko fu mu nekk nii dégg nga da war a jël garab ma ne leen baax na waaye jël ma ARP de waaye secret yooyu le ak garab bu sew yooyu le dañ ma ko dee tuuse man koy yóbbu di ko naan waaye gis naa ne naan naa loolu ba sonna gisuma dara si suma yaram li nga xam ne wàññeeku na si suma yaram waaw man yaakaar naa ne boo jëlee garab wér gu yaram nga see séentu waaw bi nga daan jël garab gi nax la daan mel ci yow. loolu laa lay wax ni garab bi su ma ko jëlee su ma amee métti tuuti si suma yaram sax su dee guddi sax ma jóg jël garab bi waaye su ma ko jëlee daal dafay am damay am nelew rek waaye du ma am li ma bëgg su suma yaram su boor setee rek daf may attaque. ci jamono ji ñoo wax ak yéen nii ñi nga xam ne ni ñoo amee jàngoro HIV ak AIDS ñoom ñu bari fi mu nekk nii gannaaw boo xamee ni yëg nañ ne. Eh, président Jammeh eh, faj na ñi nga xam ne ñoo njëkkoon a dem ak ñaareeli kuréel bi nga xam ne nii président Jammeh faj na leen bañ wér ci ñi ameewoon HIV ak AIDS fi mu nekk ni ñu bari ñu ngay dem di bindu ngir bés bu ay biñ génn nii rek lu ëpp fanweeri nit ak juróom ñoom ñoo dem pour bindu pour président Jammeh faj leen te benn tey itam ñu bari ñu ngay gën a dem pour ñu binda leen pour ñu mun a dem ci lopitaani président bi pour mu faj leen di ja faji nit ku ñuul gi nga xam ne ni mu ngi koo faj ñi nga xam ne ni ñoom la E, jàngoro HIV ak AIDS dal waaye benn tey ñu ngi leen di xamal ne képp koo xam ne nii rek am nga loo xam ne ni jaaxal na la ci sa wàlli wér yaram liñ ñu leen di digal moo di ne dem e, li ñu xamee ci voluntary counseling and testing moo di nga dem seet sa deret ci lopitaan bi su ko defee ñu segga ko seet ndax yow yaa ngi amee jàngoro HIV AIDS wala amuloo ko su fekkee nag ne am nga ko liñ ñu laa digal rek ne mooy nanga dem bindu ci e, président Jammeh ci ñi nga xam ne ni ñu ngi leen di faj ci fajum nit ku ñuul pour eh, ñi nga xam ne ñoo amee jàngoro HIV AIDS te ñu fàttali leen nag ne képp kuy dem nag pour faju ji pour feebari HIV ak AIDS ngeen bàyyi xel li nga xam ne nii eh, moom la eh, paj bi bañ li nga xam ne nii waroo koo lekk waroo waru leen koo naan ngeen bàyyi loolu su ko defee président faj leen ci ñi nga xam ne ni ñoo amee jàngoro HIV ak AIDS يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام It's time. Time to pick up a form from GRTS building along the MDI route Kanifin. Gambia's, Gambia's funniest, funniest coming soon. Oh. programs are back with AfriCell and more than ever. 250 rams. Yes, 250 rams are there for you to win this Tobaski. For as low as $10 only, you get the chance to win a ram for free. Simply SMS or call 1010 for $10 and get 4 AfriCell minutes for free and the chance to win one of 10 rams every day. SMS or call 1010 now and make sure you're part of the live draw on GRTS TV to win one of 10 rams every day. Spend $10 as credit and get 4 Africell minutes for free and the chance to win a Tabaski ram. 250 rams are offered for free from AfriCell this Tabaski. AfriCell wishes everyone a happy Tabaski. We wish you a happy Tabaski. Hello and good evening and yes, we are wishing you a happy Tabaski in advance although we still have a lot a lot of more days to go, and that's why we're giving away 10 Tobaskerams daily, so that we'll make sure every single person who we slated a Tobaskeram for gets it. That's 250 rams, and all you have to do is send an SMS or call 1010 to be a part of this draw. So if you've been doing that all day today, and if you've been doing that since the beginning of the promotion, tonight your number stands a chance of coming out. So if you're tuning into GRTS right now, don't change the channel. Don't go away. Stay put because your number might come out and you stand a chance of winning a Tobaskiram from AfriCell. Welcome. baraka mam uh, mbaɗigol mum ɓe jartes jiɓe kan ton ɓayri alayalom banna salole kana te ñinandun africell kon tal bulalaw ñama ɓayrin uh, kake ñamen